mbokk internautes yi dal leen ak jàmm Wally Ballago Seck euh, moom mi nga xamante ni nag euh, doom ci coon Ballago Seck euh, nekk itam doom ci ki nga xamante ni moom mooy Kenny Diouf Diaga daanaka nag xam nañ ko mu nekk le golden boy de la musique sénégalaise tey ñu doon célébrer li nga xamante ni moom mooy 8 mars 8 mars ñëpp xam ko ci nag sargal jigéen ñi muy journée international des droits des femmes moom Wally Balago Seck ku ci nekk ak nanga ko daal di naka célébrer moom mu daal di nag taamu célébrer euh, bi les journée euh, dédié ko ki nga xamante ni nag euh, moom mooy xaar bay ma jaaga daal di koy naka dem seeti këram daal di dem sargal ko dem woyal ko nekk ci wetam sargal ko ne nag loolee moom ab marque la d'attention boo xam ne daf ko jagleel xaar mbay ma jaaga mi nga xamante avant tout dafa nekk maamam ba noppi nag euh, nekk xaritam ne nag euh, daf ko yàgg sopp mom Waly Ballago Seck mu waxal nag euh, mu daal di nag bàyyi lépp tey daanaka folklore ak lépp mu tegee ko nee daal di nag daagu dem ba kër xaar may ma jaaga daal di koy nag célébré li nga xamante ni mooy journée internationale de de la femme muy nag loo xamante ni moom xaar may ma jaaga daanaka nag mbégte la ci àndal dem sax vidéo yi nga xamante ni nag moom la ñu daal di jël ca kër ga euh, lépp dafa daal di nag émouvant ndax euh, moom xaar may ma jaaga daal di ne nag moom Euh, daanaka nag dafa meloon ni sax dañ ko daal di naka fàtte euh, ci nag scène musicale sénégalaise ndax jëm na mag léegi yaram yi euh, li nga xamante ni moom mooy yaram wi daal di sutante mu daal di nag wére di tax mu toog ci koyam jàpp ñàmburam waaye nag xamut woon ne ab ndaw ku mel ni wala bal wali balago sekk mi nga xamante naam sëtëm la ba noppi nag mu nekk ku ko sopp nag xamul woon ne xelam mën na toog li muy nekk xale yépp di daal di am xel ñuy màggal jigéen ci àddina wëngal këpp mu bàyyi jaayam ah, bàyyi ñëpp ñëw ci man ne man lay sargal daal di ma koy naka defal surprise ni mu nekk loo xamante ni nag mu daal di koy touché bu baax a baax ba mu daal di nak jooy euh, jooy bay bëgg a dee moom xaar mbay ma jaaga mbir yi nekkoon nag lu émotif euh, lool ci nag journée 8 mars bi moom Wally Ballago Seck le golden boy de la musique sénégalaise euh, daal di rendre hommage nga xamante ni moom mooy nag xaar mbay ma jaaga ndax nag dañoo fi ay nit yoo xamante ni nag saa bu ñu defee hommage fekk mu nekk ak costume te moo Dieye fii euh, laata nag ñu génn àddina la ñu leen sargal saay su nekk waali ne nag door na ko te du ci daal di nag yem dana daal di nag dem xool ji ay mbooloo papaam yi nga xamante ni yëpp daanaka nag seen mbir ñoom ñi ba ko doon defandoo mu dem sargal yi leen ci tool bi loolee nag bëbët wax door na ko te du ko daal di nag